On est actuellement au club UNESCO de Malika. Euh, voilà, aujourd'hui c'est le 9. Donc, le nom de forum depuis quelques temps. et nous on vient de finir. Plus de plusieurs semaines depuis que nous sommes préparés pour euh, le forum. Voilà, euh, initialement, euh, structuré d'ailleurs, des réunions à plusieurs reprises, des résolutions, mais aussi des décisions qui c'est basé ci benn planning boo xam ne ci lañ tënku depuis boobu ba voilà dernier jour yi ci lañ def euh, le grand plateau de la jeunesse de Malika voilà euh, àndoon ci ak euh, partenaire média yi nga xam ne ni ñoo sur place comme on est Ran Prod comme on est Malika Live mais surtout cassette TV voilà di leen saluer au passage voilà nous avons aussi def nañ ben travail bu yaatu bo xamné ci nañ ko autorités locales mais aussi suñuy partenaire euh, que mu est, Alphadev ak ni coordonnatrice euh, cité nii donc voilà on a fait le tour quand même de la chose pour avoir une bonne organisation. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a vraiment réussi notre pari. Et ce n'est que pour la jeunesse malicoise et c'est la jeunesse malicoise qui gagne. un point, peut-être c'est peut-être à la sortie de ce forum quelles sont les perspectives lan moy li nga xam ci ni forum bi mën na koo jur benn bi moy que à savoir parce que waxtaan nañ ñu bari ci point focal bi voilà il y aura un point focal à partir de ce forum tout le monde sachez que maintenant point focal bobu dina nek disponible dans la semaine pour que kenn bañati di dem fenn di inscrire ji voilà ñun ñi organiser forum bi association yi ngeen ci dégg yépp structure yi ngeen ci dégg yépp comme muy dooleel l'exécutif AM conseil communal de la jeunesse femme leader PDA nous pour une nouvelle vision du Sénégal rapprochez-vous de nous avons dañ informations qui information yi nga des dépôts permettre de mën euh, financement voilà affaire bi nga avons aussi euh, à la sortie de ce forum comme nous avons lu une fédération on en parle depuis longtemps mais maintenant c'est sûr ça va se faire une grande fédération donc pour ku nga une structure bu mu mën di nekk ba ensemble voilà nous rapprochez-vous de l'équipe rapprochez-vous des membres qui ont xam yoo forum comme ça nous sommes ensemble Nous avons une def ba structure bu dëgër boo xam et donc je me dis que on va aura vraiment un bon résultat donc euh, c'est tout ce que je vous souhaite c'est tout ce que je souhaite à toute la population malicoise voilà une fédération forte et qui prend des décisions fortes pour euh, des résultats sur le long terme et pour les générations futures. Commencez d'abord par dire Alhamdulillah parce que la journée a été une grande réussite, vraiment avec la participation des jeunes de Malika des Malikois en général parce que suñu papa pas donc on est vraiment satisfait euh, de les donc euh, le but c'était de donc d'organiser une rencontre rencontre donner et du savoir Euh, document en tant que jeune Malikois donc on parlait euh, euh, comme donc jeunesse malicoise, parce qu'on a eu à faire une déclaration au nom de la jeunesse de Malika. Donc c'était des structures qui ont Malika, euh, comme la zone 11, comme l'amicale des élèves étudiants de Malika, le conseil communal, euh, NVS, Dolel, femme Leader, APDA et beaucoup d'autres structures. Parce que comme nous avons dit, la jeunesse de Malika, parce que ñi fi participer ci ci ci forum bi bari na parce que mouvement yi nekk Malick association yi ñëpp presque participer nañ ci peut-être dañoo lim ñooñu rek mais donc euh, te mbir su amee il faut que mu am les initiateurs euh, en tout cas on est vraiment très satisfait de la participation de la jeunesse ñëw joxe seen xalaat ci wàllum emploi wàllu insertion entrepreneuriat naka la Malika mën a def ba gën a am position bu baax ci li nga xam ne structure de financement euh, nationales et de financement mën locales euh, et tout donc nous avons bénéficié bénéficier formation entrepreneuriat Nous avons aussi le secteur informel parce que gis nañ Malika est une commune particulière comme nous avons dit, donc il euh, y a des niches d'emploi Il y a une particularité donc littoral bi y a et beaucoup d'autres qui ont amené, peut-être euh, ay suñu ay force lañu té buñu ko exploiter rek donc jeunesse malicoise bi mën na ci bénéficier bu baax donc on avait comme partenaire l'ADER ANPEJ euh, euh, ONFP 3FPT Alphadev de Malika donc structure de financement yoyu li ñuy xaar ci moy euh, jeunesse bi gën gën leen parce que tay biñu défé sen présentation amna ñu bari sen réaction moy xamee wuñu woon non la non la démé donc buñu gëné gënee jeunesse bi rek di leen expliquer dinañ mën a gën a exploiter euh, yi ñu nga xamné ne seen ay offre la donc euh, lénen li aussi moy defuñu forum pour def forum donc dañu def forum pour am benn suivi donc euh, parce que jeunesse bi donc déglu nañ seen man dégluwandoo nañ sax lañuy wax parce que ñu ñëpp ay jeune lañ dañuy dégluwante on s'est donc écouté suñu papa ay orienté nañu et à la donc euh, au donc euh, du forum nous avons présenté le document le maire présente donc les autorités yi nga pour accéder à ces formations formation et entrepreneuriat ak euh, l'employabilité en tout cas en général. donc donc le forum dañ en collaboration conseil communal de la jeunesse zone 11 ak AM ak ay structures au niveau de Malika de regrouper ay jeunes donc nous ñëwoon teew en tant que président du conseil donc nous jëmmal bés bi. donc euh, lu ñu nous avons wax par rapport à la journée mooy am satisfaction satisfaction totale lañ ci vu aussi qualité participation bi nga xam donc on a vu que ni avons nga xam te ay de financement euh, de formation yoo xam te ne ñoo am ci dëkk bi tey ñuy liggéey ak état bi yëpp teew nañ fi te def ay intervention brillante vraiment aussi la participation des jeunes gis nañu jeunes yi ñëw nañ participer massivement donc et que si travaux yi nga xam ne def nañ ko ak les restitutions yu ñu am gis carrément que les jeunes ils ont bien travaillé et que ni yaa am nañ yaakaar que ni une bu ñu jógee ci lii étape bu importante que ci li ñu jógee donc dañ leen di ñu ñëw actuellement la jeunesse malicoise dafa nek ci benn dynamique boo xamante ni Que képp kuy partenaire c'est le moment nga nous accompagner cette jeunesse là parce que jeunesse la boo xamante ni, dañoo am am na am expérience te am aussi euh, engagement am nañ benn dynamique boo xam te ne ñu ngi ci nekk donc képp kuy partenaire ñu ngi lay woo nga ñëw accompagner la jeunesse malicoise parce que président de la république moom moo jox ay institutions à ce que ñu am ay liggéey yu am solo ci lu jëm ci wàllu emploi des jeunes ak la formation des jeunes donc tous les partenaires yoo xamante ne nii moo xam étatique la wala non étatique ñu ngi leen di woo ñu ñëw rëgg jàppale le forum de la jeunesse de Malika ci li nga xamante ne commencé na ko muy un combat boo xamante ne nii doon combat am dina amal njëriñ tout la jeunesse malicoise avons dañuy à faire le ko d'abord parce que je pense que un euh, moment de partage pour monter fu Amérique, nous rek saluer parce que c'est dans les échanges que naissent les vérités qui nous ont fait le mooy defar àdduna nous moo tax rencontre pour rivaliser d'ardeur en matière d'intelligence on est toujours preneur Nous aussi on n'a pas été dessus parce que vraiment la facture des conversations est vraiment kenn def ñu bett sax parce que yaakaaruñu woon ne tey buñ fi ñëwé dañ fi ab fekk débat yu égg ci ci solo su toll ni té heureusement nak pour nous loolu lañ fi fekk ñu koy rafetlu mu nekk lo xamantene tay tey génne nañ fi xam-xam yu bëree bëri yo xamantene bu yeggee ci ñi nga xamantene ñoo jité réew mi mën na nekk lo xamantene sax déclic lay doon pour mën régler les certains problèmes que rencontrent les jeunes du Sénégal voilà tay ya a un document boo xamante ne dañ koy proposé dina yegg ci sommité yi nekk ci au niveau étatique buñ ci jotee defal nañ ci ay propositions yu bëri yi nga xamante ne ay niche la yu ñu mën a génnee emploi fii à Malika en tout cas loolu daal moom moo taxoon ñu rafetlu lool moment bi gis ne aussi jàpp ne dañ ko war a pérenniser parce que lii ni moom gox lii def ci war di sax loolu moo waraloon tey kon ñu jàpp ne dañ ko war di répéter di féliciter ñi nga xamante ne ñoo ko organiser mooy les membres du forum. vraiment ñu ngi ñaan yàlla activités yu mel nii ñu koy continuer di ko def ci Malika ak même ci Sénégal yëpp parce que jeunesse bi rek moom moo si gagné